السلام عليكم ورحمة الله مبارك ميسرين شيخ عبد العزيز نانا السلام عليكم ورحمة الله نانا ميجي زيارة نيب دي زيارة الشيخ محمد المصطفى مي موم سرين باكي سخنا لو موم سرين شيخ أحمد مباكي موم شيخ محمد المصطفى موم خادم رسول في نك بو في نيوي موم li Mansour mbay di wax nan sama yaram day daw. suma ma ci barab bi sama yaram day daw. ndax Serigne Mbacke soxna lo wante nak nit mom tank yaang gis lu bok ci mom nit nak tank yaang gis lu bok ci mom melna na ne ñàkkuloo ko. na ne ñàkkuloo te Cheikh Moustapha mustapha mi bo ko gisee rek. bo mako ko gisee rek. sa xel dem ci Serigne Mbacke soxna Lo. bis bi nag day bis bu màgg. bis bi nag dafay bis bu màgg. ndax Serigne Touba tax ñu koy def. ndax Serigne Touba moo tax ñu koy def. waane ki koy def. waane ki koy def. moo defar yoon wi. moo defar yoon wi. muy Cheikh Mouhamadul Moustapha. muy Cheikh Mouhamadul Moustapha. Serigne Touba moo liggéey de. Serigne Touba moo liggéey de. waaye nag Cheikh Moustapha moo organisé. yoonu murid su doxee ci yenn principe yi. yenn yoonu murid su doxee ci yenn principe yi. ak yenn organisation yi. ak yenn organisation yi. Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko def. Cheikh Moustapha. te Cheikh Moustapha. yan bu bàyyam yan woon. yan bu bàyyam yan woon. su su ko matalul woon. su ko matalul woon. tey yoon du ma dana daanu mais dana gëllu góose. kon de tey du ma ne yoon wi dana daanu waaye dana gëllu góose. ndax sëñ bi kat bi muy génn àdduna. ndax kat ku tedd kii bi muy làq sunuy bët. nit ñi ko doon sonal. nit ñi ko doon sonal. ba léegi ñu ngi fi woon. ba léegi ñu ngi fi woon. sëñ Tuubaa gi itam tasaaroo na. njabootu sëñ Tuubaa gi itam tasaaroo woon. rakk Serigne Touba itam ñu ngi fa ngi fa woon te ñëpp amoon doole. rakk Serigne Touba itam ñoom ñëpp ñu ngi fa woon te kenn ku nekk amoon na doole. ceddo yaa yaa ngi fi woon. crise économique bi mi ngi fi woon. te Cheikh Moustapha. te bi jox na ko ay mission. sëriñ bi jox na ko ay mission. moom mu andi ko Touba. moom mu andi si ko Touba. tabaxal ko jumaa ji. tabaxal ko ji. te jumaa ji bala nga koo tabax. te kat jumaa ji bala nga koo tabax.

def na ko def na ko. te condition bi ci gënoon biñ na ko woon ouvrier yi fu ñu wàccee yaa leen di fay. te nag bokk na ci condition yi ci gënoon métti dañ ne ko ouvrier yi fu ñu wàccee yaa leen di yoro seen payoor. andi ñu ba murid yi buñ fayee ñoom ñëpp dañuy demaat lañ leen fayoon ñu tegaat ko waaye nag organisation tax na murid yi buñ leen fayee ñu jëlaat seenu payoor delloowaat ko fa. bu subaa ñu jëlaat loola buñ ñu wàccaatee ñu leen ko ñu delloowaat ko. ba léegi bu ñu wàccee ñu jël payoor boobu ñu fayaat leen ko ñu delloowaat ko fa. mais dama wax ne nag waaye dama wax ni nag. loolu loolu zaahir la. loolu zaahir la. waaye baatin bi. waaye baatin bi. mooy lan mooy lan. ku mel ne Serigne Touba. ku mel ne Serigne Touba. liggéeyal yàlla. liggéeyal yàlla. ba yàlla gërëm ko. ba yàlla gërëm ko. ba mu am li mu am lépp. mu am li mu am lépp. ak kum ko war a dénk nag. ak kum ko war a dénk nag. kooku waajal na ko ba pare. kooku waajal na ko ba pare. dëgg la tànn na ko ba pare. mu Cheikh Amadou Moustapha. kon nag bis bi kon nag bis bii. day bis bu mag ci yoonu Mouride. day bis bu mag ci yoonu Mouride. ci yoonu Mouride wépp nag.

yàlla ko nammal ko xoli doomu aadama yi. yàlla nammal ko xoli doomu aadama yi. léegi dama doon nettali avant may ñëw. léegi rek bi may ñëw maa ngi am lu ma doon nettali. ko sëñ Mbacke si la doon wax. lu ko sëriñ Mbacke si doon wax. naan ko sëñ bi yow xaalis. naa ko sëñ Mohamed yow de jaroo dajaleel xaalis. ndax boobu yaakaar naa 111 millions lañ ko andil. ndax boobu yaakaar naa téeméeri millions ak fukk ak benn la ñu ko andil. mu def ko ci euh, ay enveloppe yu bëree bëri. mu def ko ci ay enveloppe yu bëree bëri. heure bu duggee rek def ci poos ba mu jóg. saa yu duggee rek dugg duy poos bi ba mu fees del su génnee di faj rek. di faj soxla yi. di ko def ba xaalis di ko cent onze millions yi jeex. ne ko sëñ Mbàkke ko yow daal jëroo dajal xaalis xaalis boo xam ne lu mu bari bari. sëñ Mbàkke si ne ko yow Mbàkke jëloo dajal xaalis na xaalis lu mu bari bari. balaa am ñaari fan ak ñett nga tasaare ko. balaa moo am ñaari fan ak ñett nga tasaare ko. mu ne mu ne ko nit ko fi indi. mu ne ko nit ñi ñoo ko fi indi. te nit ñee tax ñu indi ko te nit ñi ñoo tax ñu andi ko fi. loolu xam nga xekk ma bu rëy la. loolu sasees bu rëy la. li nu metti daal mooy yàlla bu nu ko fi bàyyilaatul ba ci kanam. li nu metti daal mooy cey bu nu yàlla bàyyiloon Serigne Mbacke ba ci kanam. waaye liggéeyam moom. mat na sëkk. yàlla na ko yàlla yokk ay leer te taas nu ci barkeem. te nag di ñaanal Cheikh Amadou Moustapha mii. te mi ngi te nag mi ci yoon wi. yàlla gën koo dëgëral. amin. Euh, ndax kat nit. ndax kat nit. bu sa waajur liggéeyee ba àgg fenn. bu sa waajur liggéeyee ba àgg bu bu bu yokkuwul rek. bu yokkuwul rek. ñu ne yaa defoo dara. ñu ne defoo dara. ca sëñ Mbacke. ca sëñ Mbacke. yokkoom. yokkoom lu jafe la. moo mission bu rëy nga yor. moo tax mission bu rëy nga yor. borom dana la ci jàppale. waaye jàpp naa ne sunu borom dana la ci jàppale. ñu ngi la koy ñaanal itam. ñu ngi la koy ñaanal itam. Eh, da nga yor taxawaay bu diis. da ngaa yor taxawaay bu diis boko xamé rek mu yomb lol te yaakaar naa xam nga ko. te Mbacke xam nga ko. kon nak Mbacke ñu ngi lay ñaanal. di ni dal. di ni dal. nga gis no nga ñak no gis. nga gis lu ak nga nak ñoo gis. nañ sa nañu ci sa ak ko bëggee won ak nañu ko bëggee won te gisatuñu ko. lu ko lu Mbacke rek. lepp lu Mbacke jur lu ne. man lepp lu Sëriñ Mbacke jur lu ne. dama laa def sama bopp. dama laa def sama bopp. ndax sëñ Mbacke. ndax man waruma tuutal lenn sëriñ Mbacke. yaa góore balay sa. mooy sama kilifa. ne mooy sama kilifa. di sama mag. ba pare mayoon ma dara ji ci boppam loo xam ne nii. ba pare mayoon ma dara ji ci boppam loo xam ne nii. macha allah. moom rek laa gis. moom rek laa gis. te man eh, nëbbu naa ko ndax mënumaa dem fenn. mënatumaa dem fenn. amatuma fenn fu may waxtaanee daan toog ba deux heures ci guddi. mu woolu ma. mu ne ma bàyyi yow yéen a ngi foofu di sonn rek. mu ne ah Cheikh Mbacke yéen rek. Ndakaaru gu metti googu. gu metti googu. waaye dama laa soxla Taïf. waaye dama laa ma dem Taïf. ma daal mu téye ma fa ay fan. suñuy lekk lekk muy woo gaay xoolal Ndakaaru gi. ndeysaan daal di kaf taay. su may ñibbi nag. mu ne ma lii rek laa bëggoon nga xaw a noyyiwaat dindi stress bi xam nga loolu ku bëgg rek moo la koy defal te Bougane mii xam na lu ci bari ndax moom maak Bougane yàgg nañ ci keppaaru Serigne Mbacké kon noo ngi sant yàlla bu baax bi nu ñëwee fekk fi ñii kër Cheikh Moussa Mohamed boo fi ñëw dafa mel ne sama kër laay ñëw kon nag Mbacké ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. kontaan lool te di la wax Mbàkke boo nu gisee boo nu gisul lépp rek sunu xel yëpp mi ngi ci yow sama doom Cheikh Modou Fadel maa ngi lay nuy di la ziyaare ndax bu ñu ñëwoon ci kër gi tey fekk fi leneen dina métti ci nun waaw ndax fi sëñ Mbàkke toll ci nun ak fi nga xam ne fi la àgg ci nun waaye bi ñu ñëwee ci kër gi tey jii ñëw fekk lu ñu fi daan fekk mu yokk ci fànn yëpp loolu sant yàlla la ci nun Euh, ñaan gu nangu la ci la ci noonu itam. ndax ñun Serigne Mbacke àgg na ñoo moom foo xam ne nit bu demee ba àgg ak yow ci ni la moo mënoon a jóg fii ma toog jox la li ma yor lépp te dem wuti leneen danaa ko def. loolu ku la ku la wax loolu mënatoo koo fay. kon nag duñ mën lu ñaanal Serigne Moustapha mi nga xam ne moo moo ko fi nekkal te fi mu fekkoon tool bi. mu yóbbu ko ba mu yegg si fii duñ man lu ñaanal ko mu gën a am fan wu gudd mu gën a am wér ba lépp Euh, liggéeyub sëñ Mbàkke la rek mu yóbbu ko foog nga xam ni dana ko we njortam. sëñ Mbàkke la mu bëggoon am na ko ndax li mu bëggoon mooy Cheikh Moustapha mii wuufu ay rek rakkam liggéeyal maamam ak baayam gis nga bu nit faatoo yoonu xabru yee moo kadam moo baax waaye bu si gën di gaale bare kam bàyyee baax. waaw sëñ bi mu ni dafa wax ni. ne nun ñi fi ñëw muy sëñ Cheikh mii di nun ñëpp buñ dikkoon fekk yëf yi dellu gannaaw daana am lun mit sunu gannaaw te duna am fuñ ko jooye waaye luñ fi daa gis duubal bi lañ fi gis te yow mii la jërëjëf Mbacke